waaw nga bokk fu sell foofu ba pare nag ñu xam la ci xam-xam bu ñu kukk wala lu lii nga sol tamit lii nga sol nii ay tegtal la wala. lu rouge waaw. waaw. Mm. waaw. président rab yi mooy kan. amul président. xalifa nu mu tudd. Sam Xuruus. Sam Xuruus. Baara Ñaan nee na noob boo xam ne que. bu ko defee jooni jooni lay doon maanaam amul ma dem te ñëw bu dee alarba ci alarba bi la bu dee talaata ci talaata bi li ma wax bu ëppul jooni jooni nga ma wax de. jooni jooni waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. gis xaj bi ñu ñëw ne nekk na ko Awa Ndiaye wala misaal nangam teg mu ne ko jëf nekk mu ñu ñëw ak yow ana Adebayor Adebayor sa xarit digg naa nga ne mi ngi Tuubaa fi nekk nii ci koor gi nii ah sa kër nga tëj ko fa di ko defaral ah euh, Adébert du nu naan wax wala foola dégg naa am na koy tekkil wax ji de nuyu ko Adébert mhm. tuddal tur bi mu xam ne moom ngay wax Emmanuel Adebayor attaquant bu Togo sëñ Cheikh Bara Niane waaw am na tamit ngan di maamu ministre affaires étrangères bu Burkina ñu ngi koy jëw mii nii man mën nañu dugal fotom yéen a nekk nii ci oto bi mii nii moo nekkaat ni nga yaa ngi may wan seen waxtaan ak yëpp noonu yow daal comme bu boos nga yor lu bëri rek moo tax faale dara sëñ Cheikh Baara ñaan nee na yor na socc boo xam boo ko soccoo loo wax nit da koy def ah illaha illallah socc bi nag mom kon moo bii bu lawee ci réew mi mbaa dina baax so socc bi leen bëgg a xam njëriñ li waaw waaw da nga koy wax nit mu koy wax illa li gars yi buñ ko ñu pour ñu ko na jafe dañ ko enregistré wàllum góor a sëñ Cheikh Bara Niane nee na yor na ci loo xam na que lii day yokk mandiw yor na ci benn boo xam ne ka bu nit ki diwoo diggante bu ndaw awra bi day augmenté wu di yokk xeet boobu yëpp ñëwuñu ci ak kuy gaaw a yegg wan nga ma ko waa mhm. wan na ma koo dëj mhm. léegi-léegi ah mooy bu yokk awra ak yokk mandiw bi yëpp mais mbokki Sadio Mané yi xoola yéen a ngi may dégg dina bëgg parce que Sadio Mané moom dama bëgg bu dul dara mook jaaw Balla Kayta moom ñu ñaanal leen ñu yàgg fi te wér ak euh, góor gi si Dieng yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér ak Cheikh Niass ca wal fajiri woo parce que Sadio Mané ñaanal ñu ko ëpp <laughs> waaw xam naa léegi mais ngir jàppale ko waaw day wax président Macky Sall nag waaw tuuti mm-hmm. My name is Serigne Cheikh Wil Bara Niang. Mm-hmm. Friend people know me. Mm-hmm. any problem people have, mm. you know? Mm -hmm. the community of my house. Yes. My number is 77 mm -hmm. 598 Yes. 7221. Mm -hmm. Okay.